fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que ma aminun waay est ay makkata buñ ca jéggiwul ci néegi tuuba kaay soriwul ñun ñu jàppee ko màkka tey siyaare ngir am sa yërmande hmm. sëriñ bi ñoo ngi lay tagaan te di la xaaraan ak kañaan yow mi soxol amul kañaan koo gis defal ko yërmande ay sëriñ bi yar ñu yor ñu yow ñu jàppee ko maaka tey siyaare ngir ah, xam nga leen rek mooy sa problème te du tax nga daaneel de kii bu dugg see foo mënti tool rek nii nga war a def d'accord d'accord <laughs> ma dafa ma koy diigal <laughs> waaye doo koy diigal yaay mhm. ndogu ngeen ba suur ndogu nañ bu baax danaa kan ma ruwal ah? rafet na ah te daa mu toll yaa ngi mel ni bu wóor <laughs> te nag bu wóoru <laughs> yaa ngi jongo ma mbóoj yaa ngi ci sama poche ah, sa loxo mu ngi ci sama pos ah d'accord non non dara moom mii mhm. koy gërëm ci sa kanam ndax jonga ma ju mel nii mhm. bàyyi topp borom caay ju ni man. <laughs> caay lëmbal papa <laughs> borom caay lëmbal. wax ak yow du neex ndax doo déglu. waaw bàyyi benn anecdote. benn anecdote ci histoire gënd mindeef ci moom. gënd euh, mindeef dafa xëy bis ni dafa bëgg a xam moom mooy kan. moom mooy kan moom mooy صلى الله عليه وسلم نول يا قيالين گن سيدنا محمد مو دم تي خنتوما فوفا نك فلوكو جبريل فك نكو تيبس ها فوفا مصطفى دلو كاتا امنا ريتمو دي خانا nga بغ ما داو فوفا مصطفى خاوتيت نك دا بخر نيت نيام اي تانكام بيمي يكسي تي كيرغي ньо فك فا سخنا سو تول ني كو ملني سخنا ابي بات نانكو زاميلو لي زاميلو ني تي عرب موي sang leen ma zammiluuni. Oh, zammiluuni sang leen ma. booba jigéen ju mel nii moo ko def. Mhm. foofu la doon tàggee jigéen nag. ñoo ko yaa Xadijatu. papa lan xanaa nga can. yaa Xadijatu. soxna Xadijatu ko. lan da ngay maas papa. ah lan da ngay maas. <laughs> Ah, sa batterie moo faible. soxna Xadijatu waay waay waay waay. papa <laughs> yaa ngi crampe da ngay laajte boo xamul. xaaral rek. gis nga xunt boobu noonu papa. lu am solo moo fa doon am. ci xunt bi. ndax xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy soo koy wàcc da doon laajte naan kan moo bind kan moo bind ñun kan moo ñu sàkk ñun dañoo wàcc nii rek ci àddina rek toog nii di xoole wala ñoo wàcc àddina nii rek di taxawaalu ñun fan lañ jóge ak kan moo ñu sàkk loolu moo waraloon mu daan dem ci xunt ba ci biir xunt di fa wéetal boromam di laajte ay na man rabbu ko ana kan moo ñu sàkk ñun ndeysaan foofu nag fa la ko jibril fekk wàcceel ko alquran saar bi mu ko njëkk a wàcceel mooy iqra dafa ko lolou ñu kenn dafa baaba lolou dafa dis ci côté ne Seydina Muhammad lolou dafa dis waaw koy mais sa waxe dafa wara am teggin xamal ni ngay waxe ak man waaw koy waaw koy fam gis nga fofu nak fa la ko wacce sar buñ nan iqra mo ñëk wacce alquran iqra bi la laaje ban sar mo ñëk wacce alquran nel moy iqra est-ce yaangi deggu baax iqra bom nan mom la yalla diñu jangalan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaq manam xam nga alaq mooy li ma doon wax de. léegi kay waxoo àllaq nag. benn boobu ba léegi yaay wax doo wax àllaq. papa xanaa da ngaa xamul àllaq xamul lu muy man xaw ma àllaq man. waaw wala mooy àllaq. te commencé ci xuntu boo waxul xalaq nga bàyyi. <laughs> papa yow gis nga foofu la ko jaar daan na ko xalaqa insaana min àllaqin. min àllaqin. maanaam nit ñu ngi ko bind ci toq mën ni li tax ma la mooy laa xayaa fi diini diini amul kersa faaw ñu leeral lépp rek bu mu leer nañ. yaa ngi doon wër nag bayit bu am solo mooy xadijatun sakanat sakanat bi qailatan lam yuxzika allahu fi daaray ni fi daar xamal les fois des fois aaya yi day wëlbat sa làmmañ day wëlbat sa làmmañ dëgg la la dëgg la baba nijaay nag xel puso la mag da koy for xale tey da koy for tey nag xale bee ko for nag sama nijaay yow tamit nangul te jàngale la sax jàngale la rek <laughs> mag day jàng xale day jàng hmm. waaw mu ngi maa ngi ci jàmm nekkuma ci jàmm que boobu ba tey aussi maa ngi lay déglu dégguma la lan lan mooy sa problème. mais tamit damay ragal ci ëllëg ñëw ma am gàcce sama sœur am gàcce lay bañ. ñemewoo ci lam. mais saf man xaw ma la. waaw mais nit pour nga xam ko il faut nga nekk ak moom d'abord n'est-ce mais nit munoo munoo munoo ko xam te dundu leen yéen ñaar. dama la bëgg te dama bëgg ñu and ñu genn genn bu rafet bu sincère ba yàlla def jàmm sama diggante ak yow. kii ci biir. Hmm. ay mbëtt toog ak toog ak moom. ne man laa mbëtt laa fi gën a bañ toog mbëtt de man ay ah. mbëtt. xam nga lan laa la yëgal keroog fii laa leen attaqué ngeen këlaxu ma ma man. kii dama koy réglé une bonne fois pour mbët mbët. lu ne ci mbët mbët dama wax mbët. xool eh eh wuy ma toogal toogal ma wax la toogal. la la kii dama koy réglé une bonne fois pour tout. loo koy réglé kaay kaay. eh eh kii dama koy rey léegi ko ñu tëj ma. takkal ma Lamine. kaay kaay kaay toogal. wuy ma. kii bi ma dem rek. taxawal taxawal taxawal wuy ma. mbët. wala taxawal mbët. man maa la ñaan maa la ñaan. mbët. wuy ma. billahi set yàlla maa la ñaan. toogal toogal. mbët. bàyyi dootu la ko wax. toogal toogal. waaw j'ai l'air de mbët bu bee lan. amoo ko. waaye xale bi yow yow yow. waay wuy ma. wuy ma toogal ma ñëw toogal. toog ak maa la ñor eh! maa la ñor xam nga xam nga xam nga kombe kombe xam nga kombe ma am ah, bi ba jógal jël ko bu yóbbu kombe dama koy ñuluk dama koy ñuluk kombe dama koy ñuluk dama koy ñuluk tey mu dee kii waa noppi jam ah! xarit nga jógal yóbbaale sër bi yóbbaale sër bi kaay kaay kaay ah! yóbbul sër bi la ilaha illallah mos naa ko gis nga mel ni mbëtt rek nga mel ni xat loolu la di ko fi ah waay waay lii kenn eh eh kaa yow mooy kii on mina seytaan rajim bismillahi rahmaan rahim da ngaa yuqeel nga ne da ngaa yuqeel moom dama ni foo jaar ba dugg ci biir kër gi yow borom kër gi fi est-ce que xam ko rey oh, yàllaa a fen koy jël bak kan dama dah ndax da ngaa kon ki fi